muy ne xalé yi génn leen bu ko arrangé wul wax na daal ne Ousmane Sonko nangu wax ci affaire MFDC xas na Ousmane Sonko daal bam rap c'est-à-dire que bam mom Ousmane Sonko mom baxul ci Mimi Touré tay na président Macky Sall xasaat ko bam rap légui may laaj ban mimi la ci ñaari mimi ñaari ban mimi nga ci waxal yow. ah mais ci question bi ni ban la ci ban mimi bu démb bi nga may laaj mimi bu mimi bu tay bi laa ah bu tay bi bu démb bi bu mimi bu tay bi moom na naa ay waxam wax dëgg yàlla xam nga nag man pour ma wax ci jigéen du yomb waaye ay waxam daa julliwul te jër te dóor sa doom parce que lim fu wax mimi élégance élégance bi ci moom waroon na jomb di ànd ak sax waa passif ndax waa passif amuñ daray élégance amuñ daray xam te mimi borom xam-xam la lu ko way bañal bañal xamne ne borom xam-xam la kon nak su ma ko gisee passif daf may jaxal torop wa passif nak ñoo soppi ndanam si wa passif mu ñoo mën soppi ndanam da ngay gis ku ñepp naw ku ñepp bëgg ngir xam-xamam mais bu duggé passé rek wayé di ñu contaminer la sol sen diko ñoo ñoo raw covid 19 ci réew motax gisoon niñ soppé mimi mimi di génn di wax wal waxu kumba puy do yo xamné amul bop amul génn ah bon mimi yi muy wax amul bopp amul génn opposé opposant kan moo ko mën a teree wax waaye nag xam nga lan moo gën a neex muy Bougane Gueye Dany muy Thierno Bocoum muy opposant ya muy du mbaw amul kenn ku wax ba jóg ni mercenaires yi ñu ci plateau yépp ne diw li wax du dëgg xam nga fa la ñu orienté débat bi amul parrainage moom wërte wax waaye duñ ne la li wax du dëgg de te na ab jullit loolu la war a lijjanti ndax Ousseyn Ndiaye mais toog la muy wax am na wala amut loolu moo war a engagé nit mais xolal demb ndax dama tok ay retane jappuma ma dama tok xol sama portable youtube bi ma gis sen arsenal yep ñu activer ko manam 8 direct yo xamne def wa passif différent mané sama waji xolal wa passif génné nañ arsenal bi yep mais suba buma génné liñu liñu liñu gasson tay ni ñom wa xara rek ay nit duma tuddu sen tour ay nitu passif lañ différent site man len gis nga ñom ñep génn sen 8 arsenal yi ñu génné tek bu suba bima may bu ma génnee li may laaj sénégalais yi mooy ñoom biñ toogee waxi kan lañ weddi maanaam opposition bi génnoon léegi waxi kan lañ weddi. double vandam yu saara tey double vandam double vandam maanaam on a des problèmes pour reconnaître c'est qui la vraie Mimi man seen politique bi man daf maa soof seen politique bi dama koo seexlu ndax tey mënoon na jóge ci Macky ñëw si ñeleen ah man kat jóge naa ci waaye duma ko xas duma ko xalab li tax ma jóge fa nag gisatuma fa sama bopp te ku nekk am nga si droit ku nekk am nga droit fi nga nekk boo demee ba gisatul sa bopp nga jël sa courage à deux mais ne mënatuma fee nekk fii kenn moomu fi kenn nil ne irremplaçable nga génn dem sa yoon beneen bi ci topp mënoo sant nit ki démb tey nga bëgg koo xalag xalam mënta ne xal nanguwu ko loolu say nit ku foo gars yi nag léegi ñu ngi koy jëy naan ko non présidente assemblée nationale incha allah de bu ñu changé waate gouvernement bi yaay nekk premier ministre <laughs> waaw lim mën naa ne de réew mii lim mën naa ne waaw sagam kunkande barki bu ñu ngi ko doon souhaité joyeux anniversaire ci xarum géej gi lu ne xaj na fi lu ne mën na fee nekk man moom a manqué rek man moom fitama manqué fit bu ma ko manqué wutoon ah ma def li ñoom sëñ daam di def naan leen am naa rab sama rab day faj lii sama rab day faj lee réew mi fit rek boo amee fit ba pare jël sa sa sa dignité daal di koy paqueté sànni jël sa rusukaay daal di koy wanteer jël sa full ak fayda teg ko ne ñàkk jom am fit nga tëkki ci réew mi wala ñu bàyyi la xel ndax réew mi bugguñu ko baax ñu baax ñi duñ leen talal ñiy wax lu ñaaw ci tele ñoom lañuy ñuy ñiy fenti tiktok bi ñoom la def ay influenceur na fekk yi ñoom la ñuy jox bopp réew mi toolu foofu kon nak man dinaa xool nan lay jàngee nee naa sos xool kan la fi sosal sos yu métti sax sos yu métti waaw ndax réew mi toll foofu waaye genre ñii moom ñii nga xamante ne du ñu suur dañuy lekk du ñu suur du doyal baadoo la ñooñu lo len defal xanaa mo baadoo la loo defal du la ne gër du la du la koo xam ne boppam rekk a ko ñor munoo koo defal ba mu gërëm la wala bu la gërëmee tey suba mu xalam la mu saaga la baadoo la moo mel noonu waaye ku gore dëkk lu mu métti métti da ngay ne takk takkaaral ba tekk woon la yoon waaye réew mi amul loolu.